togal fii toogal e togel. a toog yow lan la xam nga lan laa bëgg ah. sama respect laa bëgg ngeen jox ma ci kër gi da ah, koy jël da ngeen a jógee dëkk ba ma xool lu ma neex ak lu ma naqari fat leen te bañu leen man hmm. ku te ma sa wala ma sa wax jeex na mag non de ma demal nga sangoo nga dallu ok mais xoolal kon tàppet nga yow non duma tàppet góor dina daw mais góor du daw mais lépp lañ mën a paare ba mu def daw sans air sans air foofu laa nga téye ko fa ba ngoon sam eh! téye ko nii ba ngoon signal shi shi shey bañ ciiñal nee ko e ŋaŋal bu baax laa wax waaw tee ko foofu e ŋaŋal laa waa tee ko foofu sàmm eh, eh. sàmm ah. mun naa dem laabu shi fii tëral jàng ma kër gi lay xee yàlla mi moom kër gi amul suwaa